من فضل ليلة القدر لسعة ليلة القدر لسعة ميمونة فوق ليلة القدر من فضل ليلة القدر لسعة ليلة القدر

Euh, Serigne Medoune sey borom tawfiq yakar naa ni kenn doot leen ko présenté euh, borom tawfiq ñi ngi lay nuyu euh, di la dalal ci sunu émission tawfiq sàkku wér. waaw Seydi Balla ñi ngi lay dellu nuyu di nuyu jamono yi nga xam ñi ngi addu képp ko xam ne yaa ngi jàkkaarloog sa télévision di déglu seen di san seen émission bi ñu wax tawfiq sàkku wér ñu fi wax lepp lo xam ni dafa jëm ci walu wér-gu-yaramu doomu aadama ñu koy faal waxe rek di ci karaw bob bi ba ci wewu tank bi fu ci nekk dinañ ci jëm asleuf ñu tënk ci tuuti waxtaane ko pour lan fàttali ñi ko xamoon xamal ñi ko xamul woon pour gën a joyanti pour ku ci ne rek ci doomu aadama mën a xam sa bopp xam yaay kan xam ni mbir mi di doxe ba bu amee jafe-jafe nga mën a xam yan laytaay lañ war a teg pour mën a dindi jafe-jafe yooyu jërëjëf pour mën a dindi jafe-jafe yooyu dafa yaakaar naa ne ci loolu la ñuy desandi euh, ci wàllu wér-gu-yaram rek euh, lañuy ñuy waxtaanee ci doomu aadama euh, toujours tey nag ñu am spécial benn thème boo xam ne moom la ñu wax a développé pour ñëpp ñi nga xam ni ñi ko am ñi ko amul ñi koy dund ak ñi ko dul dund ñëpp war ci gis seen bopp muy ci wàllu télé te tubaab du ko wax impuissance yaakaar naa ni ñu bari xam nañ ko jàmbat la xawma jàngoro la xawma lu mu doon mais bari na bari na bari na ba kenn mënu ko natt euh, borom tawféex dañu bëgg a xam lan mooy télé. waaw boo njëkkee rek jël baat bi rek nga yem ci télé baatu wolof nga wax ci biir tële racine bi maanaam yax bi yaa ngi ci dégg të lu të ku të koo xamante ni am na jafe-jafe def lenn li mu war a def wala li mu bëgg a def maanaam tëna ko mais ci tubaab nga jël ko littéralement impuissance ñaari baat la im bi muy lu dàq puissance di kattan wala doole boo ko doon wax ci tubaab ko na naan manque puissance maanaam koo xam ni amut wala néew na la ci doole sëy nag ci góor ak jigéen dañ ko xawa jël mengolo ko ak rapport de force manam lo xamni dafa melni ni jongante mel ni compétition mel ni manam lo xam dal doole wala dafa am lu xeetu doole da ko jëmmal te du fofu la waroon nekké manam du doole lu wara a nekk la ci doomaaram ndax moy tax nit mën nek nekk ci le nit du soso pour nekk ndax bo né impuissance rek wax nga rapport sexuel rapport sexuel mooy lan ci olof mooy baane kon ki am jafe-jafe ci baane bi ki nga xam ni rapport sexuel bi mu def ko da koo të ndax dafa war am tàmbali am fu muy jeexee ki nga xam ni nag ci tàmbali bi wala ci jeexital bi wala ci biir da ci am jafe-jafe ñett ñoo ñëpp booleen boole dañoo tële moo tax nga dégg éjaculation précoce mooy koo xam ni ndoxam day teel a génn wala nga dégg faiblesse sexuelle koo xam ni sàkkaraam dëgër gi ci war du ko dëgëree ñoom ñëpp am nañ jafe-jafe ba ci nga xam ni sàkkaraam du jóg ñoom ñett ñëpp kenn mënu cee sëy tàmbali ko ba mu jeex ndax ki ndoxam di gaaw a génn moom simili ak saa mu noppi kon sëy ba amu fa jigéen ji muy sëyal bànneex bi mu ci bëgg a am donte moom am na ko ci góor gi jigéen gi du ko am kon tële na satisfaire maanaam jox ku jigéen ki mbégte bi mu war am ndax sëy jokkalante la joxante la ak delloonte ku ci ne war ci gis sa bopp bu amee kenn ci ñoom koo xam ne gisu ci boppam rek sëy boobu am na jafe-jafe comme ni ma koy faral di waxee rek nit ki lekk bi muy lekk dafay lekk pour dund l'homme pour survivre waaye nag gis nga ku nekk sooy lekk yaa ngi ci wut nag lekk gu neex neex neexu lekk goo nga ci ci biir lekk donte taxut lekk taxu jóg waaye solo la ci fii tamit sëy bi nit di sëy baane bi donte bànneex taxu ko jóg doom ci finalité moo tax a jóg waaye bànneex bi nag ci la ni neex neex bi nekkee ci lekk bi ci la bu ko nit ko amee jafe-jafe nag def ko na mu ko waree ñoom ñëpp dañaan dañu am impuissance tële nañ def mbir mi dafa mel ni rek ab montre rek kenn ki moom heure am dafa avance 4 heures moo jot mu yor 20 heures kooku amul am na koo xam moom dafa moom 4 heures moo jot waaye moom mi ngi ci midi am na koo xam ne sax moom amul sax montre far moom mooy ku yomb ki mais am na koo xam ne nag moom am na montre waaye moom dafa taxaw moom moom demut dikku dawut sax ndax ki gaaw gaawle moom montre baa ngi dox waaye amut heure kii yeexle montre baa ngi waaye dafa yeex amut heure ñoom ñëpp ci ñoom kenn amu ci heure mokki amul montre kooku moom moo gën a ñàkk waxtu ñëpp kon li ci am solo mooy montre bi nekk fi di dox heure minute seconde lépp normal ñu ne kii am na heure nag képp kuy góor na koo xam ne nag heure boobu sa montre teeloo koo am rek yow bokk nga ci ñi tële kon lu yaatu la lu lu lu lu lu yaatu la lu sori moom euh, tële kon bu ma doon tënk lan mooy tële rek demaan na ci tànk daal loolu lañ mën a wax ni képp koo xam ne am nga jafe-jafe daal si digganteeg sa soxna nga joteeg moom ca na mu waree ci tàmbali ba ci jeexital ba soo ci amee fenn ci foofu jafe-jafe rek tële nga am nga impuissance sexuelle moo xam éjaculation la moo xam faiblesse la moo xam impuissance bi ñuy wax totale wala primaire wala secondaire wala nu mën demee mais am na ci daal jeexital bu ci am ba indi jafe-jafe boobu. d'accord jërëjëf euh, dégg ngeen ko amna éjaculation précoce amna faiblesse sexuelle amna impuissance te impuissance yi wax na ci euh, ñaar yo xam manam, ni maanaam ute nan euh, borom tawfeex li nga wax ni ci wàllu télé loolu leex na expliqué ko ko mu leex ndax mën nañu laaj ni télé bi am na sabab manam télé ndax amna na indi. waaw lépp lo gis kay effet bu ne am cause lépp loo gis mu am am na sabab. ci walu tele fi liko mën sabab bari na man dama ko teunk ci ñet ba ñent patch mën nako sax upp moy ko me ba sax fukki patch ak lu top mais patch ci upp solo muy tremplin bu doon sama waji yor camera bi sama karam la damaan trépied bu mu yor muy tank dama damaan trépied ñak li tax goor mëna ñak katanam ba du mëna sey normal bi ci jitt dama la aspect physique bi la mun naa wax aspect psychologique bi mun naa wax aspect psychologique bi mun naa wax aspect psychique bi mun naa wax aspect sax physiologique bi wala physiopathologique bari na lo xam aspect aspect aspect aspect la manam yu bari yu mën indi galankor bi la. ci walu aspect physique bi manam moy jëmmi doomu aadama bi kattanam mom dolem mom nit ki góor gi góor dafa am doole doole physique mooy force physique bi pour mu am ko bokk na ci li koy may lekk gu comme ni ma koy far doxe je fii nit ñi lek lekk on mange mal ni lek lekkee lek lekk dafa am lekkin am waxtu bu war am li war ak niñ war a ak li tax war Sénégal dañuy jaawale lekk gu neex ak lekk gu ak lek gu bax lek mën na yomb sax bax mën na cher bax mën na cher bon te ku nek li tolok sab gafa sab dole pos, mën nga ci am lek go xamni dana mengok sa pos waye and ak sa wér yaram ndax li soxla rek moy nga joxe cieur yi ferñeent yi mu soxla muy vitamine nga xamni yaram dako soxla matière minérale yi nga xamni yaram dako soxla pour mën doxale ko suuxatalee bopam la ko am rek lu ci am tamu don qualité mais Sénégal fi wax ni ñu ci bari suuruñu suur mooy lépp lu sa yaram soxla ci ferñeent nga am ko mu doy sëkk kooku dafa suur Sénégal dafay jaawale suur ak regg na biir yi fees rek biir bu feesee loolu regg la kooku suurul nit ki mën naa xiif fekk ku suur la ku mel ni yow macha allah da ngaa suur. d'accord man dama suur. <laughs> waaw parce que <laughs> ay regguma macha allah biir bi mën naa am fi ñu toll nii lekk ko mën naa am da ngaa xiif waaye teewut sour nga waye bo lekke nak bir bi fess rag nga sénégalais ñom dañuy fexé ñu raggé rek fekk sour bi lañ soxla moy finalité bi kon ci patch bobu aspect physique bi mën nako indi nit problème nit ki tam war na mën a yaram bi dañ ko war noppal pour mu mëna am récupération bo xam dana tax momit katan gi bu ko mu mën fa né mais amna tam aspect psychologique bi ma la doon wax muy xel mi ndax sëy xel da ciy doxal lu bari ndax sëy xel mi moo jiitu ci lu ko doxal gannaaw bu amee yeneen yoo xam ne ñoo ko xërtal pour mu joxe ndigal moom mais xel mi mooy joxe ndigal pour góor gi sàkkaraam mën a jóg xel mi mooy joxe ndigal moo koy doxal bu doon ci wàññ lañ ne dañaan moom mooy cuisinier moom mooy toggkat bi mooy kiy def jamono ju ne waxtu bu ne la war a def dem ci cin la moo koy doxal ba yàq mën a am muy érection boobu la

am amam bi xëy na demeewul noonu te jamono jafe na yooyu yëpp mu bëgg ko régler kooku day dem ba day stressé stress boobu nag day tax góor mën a tëlee ndax góor pour mu mën a nekk góor ci neurones yi ñu koy olof di wax ndënj yi ndënj yooyu ñoom dañu am yu ñuy doxal lu ñu wax ay hormones ay xalit yoo xam ni ñuy wax lay ay neurotransmetteur muy lu mel ni dopamine bi ak lu ñu mel sérotonine bi nga xam ñooy agir ci lu ñuy wax plaisir désir xemmemteef ak bànneex yooyu li koy xam ñoom ñoo koy togg bu fekkee nit ki dafa stressé li muy def sécrétion ci neurotransmetteurs yooyu ci dopamine bi ci sérotonine bi dafay manqué taux bi day wàcc ba nga xam ne kooku même bu nekkee soxnaam maanaam dara du ko mën parce que xemmem kii bi moo fi nekk donc spécifique moo tax góor tamit gannaaw mu lekk ba regg waaye di noppalu xel mi dafa war a dal waaye tam am na beneen aspect bu gën a amatu solo muy aspect psychique bi mu xemmemteef bi bëgg-bëggu sëy bi bëgg-bëggu jokkook soxna si bëgg-bëgg boobu nag ci góor ñu bari bëgg-bëgg boobu def leen a dañ dem ba daanaka dañ koo ñàkk te li war a ñàkk nag mooy nit société bi doxee la da ngay génn ci mbedd mi xëy sa kër 8 dem liggéey ba ba ngay dugg sa kër 9 lépp loo xam ne boo boo tëjowoon nag sa soxna sa néeg mu war koo men nekk loo xam ne lu la war a jommal la lu la war a jaaxal la wala lu war yëngal si sidit la suba ba ngoon yaa ngi koy romb ci mbedd mi ngay romb mooy dàq sëyu soxna lépp lu maanaam di nga romb ci mbedd mi loo xam ne sa soxna sax moom xëy na amul loolu nga romb ko ci mbedd nag la journée maanaam jigéen ñi seen cër yëpp loo xam ne waroon na yëngal góor rek mi ci mbedd mi te nag ku miin sa kàddu ku miin sa jëmm ku miin say wax dafa lay yàpp gis na da ngay dem ci yenn bërëb yi nga xam ni lu mel ni foofu dafa am fu fos fu toj fos bu xasaw nekk fa yow booy doo ko romb xet gi dalay sonal waaye boo fa toogee diir xet bu dootu la xeeñ ndax da ngaa miin xet googu ci lépp même lekk bi rek am na lekk moom boo ñëwoon diw dafa bëgg ganaar chaque jour ñu toggal la ganaar boo ko defee ñaar bu ñu waxtee ganaar nga ne bëggatuma ko appétit bi nga am parce que dootu la ne parce ñi da dem ba aspect psychique boobu xemmemteef bi nga xam ne jigéen góor da ko war am ci jigéen kumpa boobu amatul bu ganaar gis jigéen léppam muuru léppam daj nga xam ne pour nga gis weeyam sax day jafe ci yow góor waaye léegi góor di war a soxla ci jigéen pour gis ko te bu taxee ci mbedd mi léegi du ko gis wax ma ko daanaka jigéen ñi solatuñu ay yére lépp lu tax góor mën a am siritam yëngatu mu ngi ci mbedd mi waa léegi loolu boo ko rombee ci mbedd mi yendoo ko nekk ak moom sa bureau nekk moom ci marché yi ci oto yi ci njaga njaay ci tataay fu ne nga nekk ak moom ba duggaat sa kër te yow yi nga romb yëpp sa booy seet fukk yoo romb juróom-ñett yi ñoom bu dee taar la wala yooyu ñoo ñoo gën sa bi nga bàyyi ci kër ga boo ñëwee sa kër ga loo koy doyee soxlaatoo ko xam nga ku jomme ci mbedd mi fukki junne fukki junne jommal la benn jinne bu ndaw du la jommal ci biir kër gi kon góor ñi dem ba mujj ñoom it seen xemmemteef dafa dañ te loolu fëtu jigéen ñi jigéen ñoo rey ñoom ci loolu moo tax góor ñu bari tamit am nañ jafe-jafe boobu moo tax dama ni la boo dee xool góor ñi seen tële lu ci ëpp bu dee fukk la juróom-ñett yi jigéen ñi ci ci cause bi yëpp jigéen ñi la ndax benn góor gi pour mu lekk lekk gu baax jigéen gi moo ne ci waañ ba mooy togg kon bu ko toggalé togg bu baax jox ko lu baax dalal ko noppal ko gor googu dana nek gor bu ko dimbali dem ci laaj yu metti sa jëkër ex rek ne ko gaz bi jeex na ceeb bi jeex na facture courant bi ñu won fit bu neena reus koku du xam lu muy nelawati du xam lu muy teud koku boko soxla ci guddi gi do la mënal dara parce que titel nga ko ba nopi te nit nak du tit ñaar yoon tit titat mu amul bo tit tit rek tit nga sa bu xasse dem dem na kon dalal sa borom kër facture courant ñoo mu egsi nga bàyyi ko facture gaz bi jeex mu egsi nga dalal ko utal ko ndox mu sangu toppatoo ko jox mu lekk jox mu naan ba mu dal reer nelaw ba bët set bay xëy di liggéey nga ne ko ah gaz bi de moom nangamoon na facture bi ñëwoon na bu xëyee di dem di liggéey dana xam ne am na lu mu fa bàyyi journée bi dana rey boppam ba buy ñëw dana ko indaale mais boobu motivé nga ko mais fii aspect psychologique boobu dimbaluwuñ ci te bëgg-bëgg itam ci soxna yi bari ba nga xam ni góor ñi euh, attanuñ ko parce que boo seet nag quoi qu'on dise lu ma góor ñi de mais góor ñi ñooy ñooy togg ndax ñooy fay jànq yi togg góor ñi ñooy paase di fóot ndax ñooy bi góor ñi ñooy couche ñooy ñooy bàcc ndax ñooy jënd couche yi góor ñi même ci wasin sax ñoo ko def ndax ndax jigéen ku ci ëmb léegi césarienne ngay def góor ñi ñooy fa césarienne loolu lépp dajale ci ku góor ki ku jigéen ki léegi lan lay def kon bu ko ku wenn loolu yëpp mais boo ko bëggee laaj feneen du ko man pour mu mën feneen dafa am foo koy taxaw loolu nag moo tax ma ne jigéen ñi nañ ma jégal ci ñi ma ko war mais li ci ëpp góor ñu bëri seen tëre bokk na ci ñoom muy ñàkk dalal boobu ñàkk taxawu boobu ak toppatoo boobu waaye tamit waaye tamit ñoom jigéen ñi nëbb seeni cër ba seeni mbir jafee gis waaye loo xam ne foo romb gis ko fa est-ce que di nga ci amati sax soxla kon bokk na ci tax jigéen ñi indi li tax góor ñi ñu bari télé boobu dal leen am na ci yeneen yoo xam nag ay feebar la ku mel ni ku am jabet jabet yàgg ci moom dem ba am neuropathie diabétique yu mel noonu nga xam ne ay complications la nga xam ni dafa am impuissance secondaire ak feebar wala ñu am hypertension artérielle hypertension artérielle yi ñooñ tamit mën nañ ko def ak góor ñi xam ne dañoo ñàkk dañoo nekk ci toox mi di tox góor gi tox moom tële rek. ak ñeneen ak ñeneen kon yooyu bokk na daal nit ki fexe ba yooyu mu mu sàmm ak jigéen ñi nag fexe taxawu seen borom kër yi di leen jaajëk jaaju ba nga xam ne danañ mën dem. d'accord euh, jërë ngeen jëf ñi nekk euh, toujours ak borom tawfeex euh, tey wax naa leen li ñu war a waxtaanee ci wàllu télé la ñuy waxtaanee yaakaar naa ni dafa war a yaatu war nañ ci waxtaan lu bëree bari dégg ngeen ci li koy sabab noonu doole ji ci lay bokk kattan gi lekk gi. jigen ñi ñu leen yeen la waye am ngeen ci part de responsabilité euh, daf koy jar ngeen euh, xolaat li ngeen di doxé ngeen xolaat ni ngeen di doxalé euh, borom tawféex lolu moy ñi nga xamni mom moko sabab ndax mbirum tele bi ñi waxtane ndax ñi ñi mën nañ ci muccu waaw nit mën na ci muccu muccu nak moy rek nga fagar su ko rek fagaru rek fexé ba li ñu wax prophylaxie bobu jël say kay ak say kay ba fexe banal kay yu jitu yi nak moy nga am hygiène de vie fexe ba sa lekk na baax kon lekk gi c'est prioritaire jigéen ñi dafa leen seen boroom kër yi lekk yu baax yu am ay ferñeent yu baax mhm. te bàyyi lekk yi nga xam lu ne lañ ciy def am na xeet yoo xam ne dañu jël fukk bu nekk ak turam def ci benn cin daanaka sax ñoom bu ñu yàkkee deux boo ñëwee fekk añ ba forox na ndax lu ne la ñuy def ci biir ba nga xam ni wér du ci topp déedéet kon nañuy togg togg yu sell yu baax bañ def lu ne ñu def ko ci def togg pour mu neex ba mu jigi day mujj neex ndax lu ne ci ben togg nga def ko ci togg lu mu gëna simple gëna baax ci wëru doom adam bi kon soxna yi nañ xolat togg yi ngir seen borom kër yi ñu mën am dund gu baax goor ñi nañuy noppalu mhm. bo nekkee ci àll bi fitna dang dang dang exxon del noppalu waaye boo bëggee mel ni Lamine Socé bis bu nekk nga sëy ak sa jabar bis bu nekk nga sëy ak sa jabar da dee boo sëyee tey noppalul ñaari fan ñett. est-ce loolu nit mën na ko sëy chaque jour. am na ñu koy def am na ñu koy def Lamine soose ci la dëkk. am na ñuy sëy ñaar ñett yoon ñeent ci benn guddi. d'accord mais fu ñuy mujj tële rek. te boo tëlee nag ka nga doon sëyloo ñett ñeent maa la jàmbar boo tëlee moo lay njëkk a weer na la yàmbar la kon du compétition ndànk rek fexeel yow ba pañe bi soxla pañe góor bi soxlul nga yor ko amal ngàdd bi rek di ko gérer sa ngàdd rek di nga am jàmm kon sëy bu bëri bi tamit na ko góor ñu bàyyi tey noppalu ñaar tamit li ëpp solo mooy nit ku nekk daal boo ko doon tënk ku ne na nga dugg ca la nga man yam ca la nga man daal hmm. bu dee néeg nga mën a luwe yam ca luweel néeg bu luwe appartement hmm. weer bi dee fu ne ngay dugg loo ko budé kurang courant 20 mille nga mëna fay bu jënd frigo télévision climatiseur nga bolo ci indi sa bop problème ku nekk bo duggé ci la nga man def la nga man soxna sa nga am tam nga fexé ba yar ko ci la nga am mu yemale ci la nga man di ngeen dund jam di nga am wër mm-hmm. di nga am jam sa soxna yi comprendre ci lol andal ci lol ngeen and di nga am jam mais bu fekké da nga dugg ci lo manut day ni jafé jafé kon goor ñi nañ dugg ci lu man ci lepp ba sax ku ku ni yor ñaari soxna wala ñet wala ñeent jafe la condition yi yamal ci ben bu fekkente ni sax da nga euh am ben néeg bu la na turu appartement gu appartement bu dedet ci ben bi bu de da nga am sombi sombi ko bu de da nga am ginar ginar ko li nga am nga dundé ko manam nga lima ba limay may faral wax rek ku xeybul so nos ku nek yaangi nos fexel ba li nga am nga méngaloo ko sa sa bëgg-bëgg ak sa li nga am fexel ba ak li nga am ak li mën nek bu ko defee di nga am jàmm moo xam ci wàllu sëy bi moo xam ci wàllu dundin bi ci wàllu doxalin ci wàllu lekkin bi lépp bu ñëpp defee na rek nga am tranquillité d'esprit li ñuy wax ataraxie rek di nga am jàmm bu ko defee di nga am wér xëy na du ñàkk nag yenn feebar dal la yu mel noonu moo indi la jeexital ci wàllu sëy bi boobaa dañuy xam ne kat kii feebar sàngam bi ko dal moo indi jeexital ci loolu nga saafara ko d'accord euh, loolu du ñàkk feebar ak doomu aadama ñoo ànd waaye euh, lépp rek dañ ko war di préparer euh, li wala fi di wax rek yaakaar naa ni ku doom te ñetti jabar utoo ci dara dafay jar ngeen xoolaat ci li ngeen di dugg ak ci li ngeen di nekk ñu ngi ak borom tawféex toujours madd bi jot mi ngi fii ci këram gi nekk fii ci amoon tefes alxamis yi mi ngi Kaolack foofu ci Ndorong Touba mi ngi fa ajjuma garage Daaru Musi samedi yi mi ngi foofu Thiès euh, grand standing ci ginnaaw gaaru Thiès bi dimanche tous les quinze jours mi ngi njëlofeen kéeru iyansi bi euh, képp ku ko bëgg a jot numéro yaa ngi ci ba écran bi ci suuf ki ko ci woo rek euh, di nga jokkook ndaw mi bu soobee yàlla yonent bi ngeen mën a jokkoo bo tawféex si biir waxtaan bi sànq dégg naa la ngay wax waxu maanaam doomu aadama Sakram di juk est ce euh, xel mi dong moy tax ma manam xel dong moy moy moy tax sa sakra meuna juk ci doomu adama non non manam xam nga euh, walu sey processus la walu sey doxin la la rythme la cadence la manam dafa am ben tempo bu mi am ci tambali ba fu mi jexé ku ci ne nak am lo ci wara dox muy ki nga xamanteni ci bopp bi nga wax muy wàllu xel mi dëgg la da ciy dox ndax moom mooy doxal li ci ëpp waaye sàkkare ku góor ki da ciy dox waaye deret gi da ciy dox ndax deret bi mooy solo ci sàkkare ba waaye xëtër bi nga xam ne mooy jox deret bi oxygène raxas ko dindi gaz ko ni da ciy dox wante xol bi nga xam ne moo koy sànni da ciy dox waaye courant bi nga xam ne mu ngi jógee ci neer yi muy sacré 2 beeg sacré 3 bi muy jëkk ci kii yooyu da ciy dox pour war ay yu bëri ñoo jox maanaam benn genre symbiose boo xam ne mooy am comme togg la rek gis nga érection góor sàkkaram jóg comme togg la rek ba ni nga xamante ni foofu la foofu lay àgg kon xel mi dëgër ci la bokk deret gi ci la bokk sàkkar si ci la bokk euh, euh, xëtër bi ci la bokk xol bi ci la bokk yooyu yëpp ay cër la yoo xam ne dañuy dox ci wàll si waaye tam yeneeni cër yëpp da ciy dox ndax sëy bu ko góor di def ak ku jigéen maanaam boo doon xool yaram bi jëmm ji

parce que lu bobu yaram bi yep ñoy soxla oxygène soxla sen gaz ñu dindi ko parce que cellule processus bi ni muy doxé bopp bi soxla suffisamment d'oxygène aédique pour mu mën dérouler loolu plus sang bi nga xamni ne ñu ko téye ci corps caverneux bi muy muy ngëndal bi kon même ci xëtër bi nit ki buy nooyi ci minute bu nek fukki yoon ak juroom ben lay nokki di nooyi fukki yoon ak juroom ben par minute mais moment bi nga xamni ku nit ki mi ngi sey day def juroom ben fukki yoon 60 respiration par minute modou dafa ñu doon boo fekkoon ñaar ñuy nga bett leen da ngay dégg seen dënn yi ni muy xeexee wala seen xol ni muy defee teuf teuf teuf parce que moom tax parce que moment bobu organisme yépp pratiquement dafa nek en évolution ciir motax mu nek lo xam nak nag processus bu garaaw la moo tax du yag nak ndax bu yagone kon nit ki rythme bi cardiaque bi ak rythme euh, ventilation bi non bu yàggee nit ki mënu ko attan donc motax euh, ci lolu euh, mu nek lo xamanteni lu lu lu lu lu am solo la waaye daal cër yi comme ni ko tënkee rek moo ko doxal nga xam ne kon nag comme que loo xam ne daan def 80 battements par minute nit ki di sëy mu def 180 nit ki di nooy 16 respiration par minute muy sëy mu nekk 60 pour cent nga xam ne kon xol bi ak xëtër bi kon ah li ñu ciy dox nag am na solo kon ku sa xol am jafe-jafe wala sa xëtër am jafe-jafe ah kon sa wàllu sëy mën naa am jafe-jafe bu rëy moo tax gisoo tuxkat yi doon ñu am problème mu sëy parce que oxygénation bi du doy xëtër bi cigarette bi. ci xasida la jëm da koy yàq seen seen kii du baax moo tax

ci télé bi la ñuy euh, ñun ak borom tawfeex li ñuy ci plateau bi fee mom lay ñëw defaat ko expliquer waat ko ci tableau bi euh, comme ni ko tamalé rek borom tawfeex tableau bi waaw kon euh, nañ ko daan defee rek lañ jottona teunk ci waxtaan ñu jëm ko def démonstration fi pour nit ñi xam li ñuy wax mécanisme érection manam góor pour sakaram jóg li xew yëpp ak ci yi ciy dox comme ni ko la sànq ñu génne fi mécanisme bi wax système bi ni muy doxé dafa mel ni appareil rek appareil nag système wala mécanisme moo koy doxal ñuy profité di nuyu euh, Serigne Cheikhouna Seye si Thiès borom Jador boutique borom dàll yu rafet yi dégg naa keroog mel na la ay dàll ak ay bijoux pour sa soxna si waaw koo koy Cheikhouna Seye ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal suñu borom di nuyu itam suñu téer waaw Papa Ndiaye Papa Ndiaye Papa borom mooy génn mooy génn yi gis nga yi isulu Papa Ndiaye la waaw waaw kon nag euh, waa njaay Ndiaye Tawfekh Couture kon moom yàlla na yàlla selal loxoom moom ñëw yu rafet lay ñëw kon dee leen dem ci Papa Ndiaye waaye dem leen ci Papa Ndiaye mu leen ñëwal waaye kon nag ñun ñu ne ci ñaw bi fii ñun li jiitu kon buñ ne érection muy góor sàkkaram mu jóg kon faaw ñu wane sàkkara góor nu mu mel d'abord muy appareil bi génital bi tubaab di ko wax sexe bi arab di ko wax awra olof di ko wax pëy mooy pëy kon bu góor nag ci olof moom lañuy wax ndéeñ arab ñu bari naan zakar sax mais du zakar zakar mi ngi tekk góor ci arab jigéen unza waaye nag sakkara góor ci arab kamra la tudd tubaab na ko pénis kon ñu dem ci tàmbali tey nag ma demati rek ci tey chinois yi laa may émission yi waaye nag tey Lamine Socé ci laa nekk te rek tey maa ngi dessiné Lamine soose kii bon lii mooy tànk bi rek en quelque sorte fii mooy rectum bi muy suuf mi demee toilette yu mel noonu bon yaxu colonne vertébrale nekk nii yu mel noonu ndëjant kii bi euh, muy séq bi colonne vertébrale bi séq beeg yooyu lii mooy sàkkar góor gi góor gi nag ku nekk xam na ni góor fa muy sawe sawam di fa jaar di génn fa la buy say man ñoom di génn maanaam fa am benn siddit bu maam ñu koy wax urètre olof di ko wax solom moo nekk nii moom nag bu demee day ñëw ba ci li nga xamante ni mooy kaw mbuusu saw muy vessie bi lii mooy urétère bi di solom bi solom bi nag góor bu sàkkaram jóge ni muy dangee ba mel ni yax su moroom day bañ tiwo bii man ni war a jaar wala saw mi war fee jaar dëgëraay boobu tañc ko bu ko defee bi muy tuyau boobu dootul mën a génne li mu bëggoon mu muutal ko benn laytaay benn mbuus bu ko ëmb bu nooy olof di ko wax corps spon ki tubaab di ko wax corps sponge olof di ko wax nepp nepp gi moo nekk nii moom moo ñëw muy corps sponge bi moo nekk nii lii ma nekk en bleu waaye bleu mooy baxa vert bi mooy nëtëx verte mooy nëtëx bleu mooy baxa dafa am baxa rombal baxa meew baxa rombal ak baxa nangam ak nangam eh, yi ngay dégg ci xeetu mais verte bii nag moom mooy nëtëx dama juum sànk dama def lu ñuy wax pléonasme xaw ma astafurla lu ñuy wax lapsus maa ngi jéggalu ci loolu waaye verte bi mooy nëtëx bëla baxa la ko tubaab di wax la ko olof di wax kon ñii mooy sàkkar bi neew naa la nag góor bu demee bay sëy sëy li tax mu jóg mooy doom muy man yi bu war a génn kon doom yi góor am na ci ñaar tubaab di ko wax testicule moom mooy defar li nga xam ne mooy wallax njaani ci li ñuy wax cellule de léegi yi ci ñuy wax type somnifère rek yu mel noonu kooku beneen wàcc la boo xam ne intéressé wuñu fi dañ koy romb rek moom it mu am benn sidit bu ko jël xam moo jël lépp yóbbu ko yóbbu ko mu ñëw ci li nga xam ne mooy prostate bi dem jaar ci li nga xam ne mooy urètre bi pour mànn yi bu fa waree soxla mu génn fa lii def doñ ji nag moom mooy bourse bi moom dafa am ñaari tur testicule ak bourse déedéet testicule mooy doñ ji olof xuur la koy wax li ëmb testicule yi di doñ ji tubaab di ko wax bourse olof dambal la koy wax mooy testicule ci mooy bourse bi di dàmbal ci olof lii nag di pénis bi moom la olof di wax ndéeñ lii mooy ndéeñ bu ko defee nag sàkkara bii nag pour mu jóg faaw xel mi doxal ko ci xel mi nag dafa am koo xam ne moo yor wàllu wàllu fii dama def rek muy lob yi waxoon nañ fi lob occipital yeeg waaw la frontal yeeg yooyu hémisphère kii bi waaw gauche ak droite yooyu ci cerveau bi yii moom defoon nañ ci waxtaan boo xam ni xawoon naa kii tuuti ak cervelet bi muy yuur gu ndaw gi ak li nga xam ne moo jëm ci bulbe rachidien beeg ñoom tronc cérébral xeet yooyu waaye nag li ñu soxla tey mooy hypothalamus bi nga xam ni ci wàllu xemmem góor ba sàkkaram mën a jóg moom moo ko yor hypothalamus mi fii la nekk xel mi nag pour mu doxal ba ku góor ki mën a am yëg-yëg faw am lu ko yëngal pour mu joxe ndigal pour sàkkar bi jóg li ko mu yëngal benn bët yi ci la bokk maanaam ku góor ki gis lu ko neex jongama ji neex na ko wala taaram wala yu mel noonu am na daal lu ko frappé ci ndaw si mu yëngal ko jox hypothalamus ba xel mi joxe ndigal pour sàkkar war a jóg wala bakkan bi lu ko neex xeeñ na ko lu indi xelam ci sëy mu yëngal ko bopp bi joxe ndigal sacré bi jóg walla noppi dégg na lu ko neex gisoo bu njëkk ci wàllu sëy nga gis ay cuuraay ay fer yooyu nga xam ne nii jinne ko def yu tubaab yi yooyu dafa am lu mu doon doxal ci ku góor gi ci déggin bi ci xet bi ci gis bi ensemble lañ doon boole gis lu taaru sa kanam lu neex di la xeeñ ngay dégg leneen lu la neex mooy indi xemmem téef bi ci hypothalamus bi ba cër joxe ndigal moo tax tam bakkan bi mën na ko doxal gannaaw nag bëgg ku góor ki lekkee lekk gu neex ba noppi nag gu baax gu koy may doole mu dallu bu baax xel mi daal ci lay mun doxal loolu bu ko fee nag bu loolu ñëwee nag moom xel mi su ko doxee jotee information bi da koy jox moom li ñuy wax moelle épinière bi muy ndëjëntaan bi ci cat ba ca suuf muy ci nunqurunq ba sidit ya fa nekk muy sàkkare deux bi nunqurunqul ñaareelu pàcc bi ak ñeenteelu pàcc bi ñu maas ko maanaam dangay gis ni day ñëw nii day ñëw nii fii lay ñëw mu maas ko courant bi mu maas ko courant bi fii lay joxe ndigal maas courant pour lan corps caverne bii ak corps sponsor bi ñoom bu ñu nekkee sàkkar go dañuy rasu mel ni lu bank fasu parce que soxlawuñu bu waree bu waree sëy nag dañuy fexe maas ko courant mu firi ko mu ubbeeku ngir mën a jël deret deret boobu muy mën a jël nag deret gi moom mooy dem nekk ci sàkkara bi pour mën a doxal li nga xamante ni mooy sàkkara bi mën a jóg maanaam boobaa da gis kon xol bi da ci am solo xëtër bi da ci am xolo da ci am solo xëtër bi laay def nii bon xam naa defoon nañ sa waxtaan ci wàllu xëtër yi ci alvéole yi yi xam ne ñoo yor manque ga oxygène bi ak gazam di ko changé waaw ni ñu ci waxoon rek ci bronche yeeg bronchiole yeeg yooyu. lii mooy problème mu toqati waaw toqati nag fii la ñu amee problème. dañoo war a bàyyi ah, gis nga mi ngi noonu yenn saa yi jaba ji kalaame ma ne ma kii ma am lu ma ko jox. mais sama garab yëpp jeexal na ko. bon lii mooy xëtër bi lii mooy xol bi lii mooy xol bi xol bi moom mooy tëdd ci diaphragme bi olof di ko wax sem bi pour deret bi nag mën a ñëw fii faaw xol bi. moom xol dafa am ay pàcc yu fa am ni am lu ñu xolub ndeyjoor ak lu ñu xolub càmmooñ cœur droit cœur gauche maanaam côté ndeyjoor bi bépp deret boo xamante ni dafa am gaz carbonique salté nga xam dañ ko war a raxasaat ci xëtër yi moom moo koy yóbbu waaye nag bépp deret boo xam ne nag set na ba baax ñu ko séddale cër yi lu mel ni bu ñu soxlaa ci wàllu sëy nii deret gi war a dem ci ndënjë ci ci ngëndël ba ak ci nepp bi ngir solu fa pour sàkkar ku góor ki mën a jóg boobaa deret bi dafay jóge ci li nga xam ni ci veine pulmonaire bi gannaaw ba ko xëtër bi raxasee defal ko ci oxygène day ñëw ci veine pulmonaire bi lay jóge bu ñëwee mu dugg ci li nga xamante ni mooy oreillette gauche bi muy nopp càmmooñu xol bi la deret bi dugg romb li ñuy wax valvule mitrale bi maanaam benn genre buntu la bu ndaw boo xam ne dafa am ñaari bopp moom lay fël dugg ci ventricule gauche bi muy buntu xolub càmmoñ bi génn génn dem jaar ci artère aortu bi gannaaw ba mu rombee valvule bi nga xam ni mooy valvule aortique bi mu ñëw fa daal doxal dem ñëw dem solu ci ci ndëndal ba ma la waxoon muy corps caverneux bi sol ko deret ak corps spongieux bi muy muy li nga xam ne mooy ngëndal bi corps caverneux bi bu ko defee sàkkara ku góor ki doog a mën a jóg mu am li ñuy wax érection nga xam ne kii ci lay doog a moom mën a say day fekk deret gi jóge na fa ñëw fekk courant bi maas na ko moom ci neer bi ba nga xam ni corps caverneux bi ak correspondance muy ngëndal beeg nepp bi firiñcu nañ mu joxe ndigal deret bi daw solu ci ba fees mu tëj ko gisee fii dafa am ci biir sàkkara góor ay sudu ñoo nekk ci biir ay artère ak ay veine ak ay sudu yoo xam ci nerf bi lañ bokk maanaam bu ma ko doon misaal fii dafa mel ni nii lay def sàkkara góor ci biir maanaam comme fii nii su ma ko daggoon war la ne ci biir fii nii lay xaw a dafa mel ni tube lay def nii lii mooy sàkkare bi final bi dama dagg bopp bi rek pour ñu xam ne ci biir li sa dafa am ay artère yoo xam ne dañu bokk ci siddi ji yoo xam ne ñoom ñoo nekk nii ñoom ñooy solo deret bi pour fa la deret bi ñoom solo ba fees boo solo ba fees nag deret saa yu duggee ci artère bi buy génn ci veine la war a jaar retour bi fii mooy veine yi nga xam ni mooy retour bi yii mooy retour bi nekk en bula di baxa yu xonq yi ñooy artères yi waaye yi nga xamante ni mooy nerf bi moom moo ne yor courant bi moo nekk en vert nii la sàkkaru góor gi di mel ci biir boo ko daggoon ku ci ne am lu muy dox nag bu deret di soloo nag veine yi nga xam ni ñoom ñoo ko waroon bàyyi deret bi jàll ñoom ñooy tëju bañ deret bi dëppaat moo tax góor sàkkaram di continuer di dëgër ba nga xam ni nit ki pare na sëy ba ndoxam génn ñu doo ko joxe ndigal ne veine yi ubbeeku leen pour deret bi ñibbi ci la deret doo ko jógewaat fii ci sàkkara bi boobaa day nekk dootu nekk deret bi xonq day nekk deret bu ñuul ndax oxygène bi dañ na gaz carbonique moo fa ne mu dëppaat moom mooy dëppaat ni jaar ni dugg ci li nga xam ni mooy noppub xolub ndeyjoor bi muy oreillette droite mais ci veine cave bi lay jóge dem foofu dugg ci oreillette bi dem ci ventricule bi droite bi muy buntub xolub ndeyjoor bi jaar ci li nga xamni moy artère pulmonaire bi gannaaw ba nga xamni bimu duggé ci oreille day nan ci li ñu wax valve tricuspide bi mom bi am moy bi am ñetti bop bi mu dugg doog demat jaar ci artère pulmonaire bi dugg ci xëteur bi xëteur bi raxasat ko dindi salté yi muy gaz carbonique yu mel noonu defaat ko mu xonkaat am oxygène mu indiwaat ko processus sang bi waat dina fekk nag bii bi mu ñëwee moom dana jox tam ci kaw parce que bopp bi dafa soxla deret sang maanaam la nit buy sëy xëtëram bu doon def 16 respiration bi day def 60 respiration boobu minute waaye xol bi dina doxal 80 battement mais mu def 180 battement kon dana kon circulation sanguine bi dawin bi dafay gën a yokk moo tax gis ni dawin bu gaaw boobu yokk nag moo tax xëtër bi doxal lu baax lu bari ci raxas deret bi ak dindi li nga xam ne moom mooy moom mooy déchet bi nga gis ni kon boobaa day la bouleverser léppi doomu aadama bi bu ko defee nag kii réaction yi am léegi nag bu dara bu dëppaatee nag sàkkara bi wàccaat bu ko góor gi bëggaatee sëy ci saasi du sotti ndax courant bi bu ñëwaatee du maas ndëñanta kii bi euh, nepp be ngëndal bi muy koor kaverne bi ñu mën a fureekuwaat day fekk ñu doo ko delluwaat seen place mu ngi mel ni jiit ne loon tip matt rek fit bu la fitee benn fit bi ba sa topp dootul parce que day fekk dangar ga fii nag même sport moo tax foog tam nit ki toog lu yàgg doo ko mën a sayaat waaye toog boobu nag mu ngi dépendre nag ci xale la wala mag la wala naam xale mooy gën a mën a jekkaat pour mën a tàmbalaat ko mag kon lu âge yi gën a dem muy gën di euh, sori waaye question d'âge la euh, du question man-man kon nga gis ni moom processus bii nag mooy mécanisme bi nga xam ni mooy tax góor mën a nekk góor gannaaw ba xel mi xalaatee waaye am lu ko yëngal ci bët ba ci nopp ba wala ci bakkan ba mu jox ko li nga xam ne mooy ndëjëntaan bi di moyen épinière bi mu indi ko ci nunkurunk bi ci sacré beeg dée bi ak kii bi mu joxe ndigal bi muy corps caverneux beeg corps spongieux bi muy nepp bi ku ci ne firintiku xol bi joxe deret bi gannaaw bu mu ko jëlee ci xëtër ba mu set mu indi ko bu ko dellee mu waat fële gis nga fii da nga gis ne xool circulation bi sax dafa juunoo dafa dëpp gis nga fii bu jógee ci li nga xam ne mooy Euh, ventricule droite bi ci artère pulmonaire bi la jëm te dañu gis ne nga wax né leen nit ki deret bu bees bu set bi likay yor moy sidid yu magi muy artère yi deret bu ñuul bi am gaz carbonique bi li koy yor mooy siddiit yu sew yi waaye nag boo demee ba ci doxinu deret bi ci biir xëtër bi xol bi fu ñuy passanté li ñu wax la petite circulation dafa am ñu wax grande circulation am lu ñuy wax petite circulation grande circulation moy bi séddale bi mag bi di am waaye digënté puusal ba passe ma passe nga xamné xol bi xëtër dañ koy defante ci seen biir foofu la ñuy petite circulation foofu artères yi sidit yu mag yi ñoo yor sal deret bu ñuul bi veine yi ñoo yor deret bu xonq bi moo fi gis fi veine pulmonaire bi fii gis fi artère pulmonaire bi lii mooy dox nga gis ne kon yëpp bu ci benn amee jafe-jafe nag ku góor ki wàllu sëyam jafé jafé mën na cee mën na cee am kon ci tënk li moy mécanisme li tax góor mëna nek nekk mëna mën d'accord D'accord. Euh, loolu leer li moy mécanisme bi ni euh, mbokk yi koy sétane gis ngeen borom tawfex ni nga décrire na ko euh, ci façon wolof nga grande circulation petite circulation bi borom tawfex li nga expliqué ont yëpp na ni leer mais ci biir yi ci plateau bi dama dégg ngay wax bay éjaculation précoce. ma bëgg xam lan mooy éjaculation précoce ndax euh, nit ñi dañ koy dégg euh, ci xeetu télé la bokk d'accord naa mais lan mooy éjaculation précoce. waaw éjaculation boo ko déggee rek mooy koo xam ni day gaaw a pare ci sëy bi maam danaan salaamaaleykum rek fu mu fëggee puntu kër gi ñu koy ubbil déedéet ñu waraat gannaaw ne maa ngi ñibbi ka nga ka nga doon seet sax doo ko far gis kooku nag dalul Lamine Socé Lamine Socé moom macha allah. mais ñenn ñi kooku laminaa la kooku li ko indi mooy xam nga nee la éjaculation góor pour ndoxam génn moom yi dafa am benn mécanisme buy dox dafa am luy am pour mu am gis nga fii doon ji defar wallax njaan yi bu góor gi sëy defar na wallax njaan ba def ko ci épididyme ba denc ko góor gi bu tàmbalee sëy rek ba mu yàgg rek maanaam en fonction excitation maanaam fi xëmmemte fa kéem toll rek dañuy dajale wallax njaane daw yobbu ko ci tuyau bi indi ko ba ci prostate bi fi ak li nga xam mom la ñuy wax vésicule séminaire fii yépp dajalo fa ak liquide prostatique beeg yépp dajalo fa di xaar manam dafa melni ku yor ci pistolet rek ni ngay dugalee bal bi fermé dogo a manam da ngay armé buy sey day armé armé bi moy man dajale wallax njaane yépp mu ñew tegu fi exina mu simulé gis na góor so gisé buy sey du mun saw maanaam bu sàkkaram jigéen bu dëgg du mu sax parce que fii saw mi jaar nii dafa am ñaari sphincter yu fi nekk ay bunt dafay tëju pour mën a may mànn bi jàll parce ñoo bokk yoon bi ñuy jaar léegi nag fii nga xam ni fa la mànn bi war a jaar sphincter yooyu bu fekkee ku góor ki sensibilité dafa ëpp trop xel mi day teel a jox ndigal ni ubbi bunt yi bu ko defee góor ki ndoxam génn du ko mën a téye du lu muy tey bu sañoon da koy téye waaye kii mooy joxe ndigal da koy mett de waaye nag fekk ni ndigal li jub na bunt bi ubbeeku na ndax yorul bunt bi man yu bi génn loolu feebar la. waaw. déedéet bu maanaam nit ki bu fekkee mi ngi mi ngi sëy dañuy fatt fi saw mi war a jaar. parce que dafa war a tëju parce que ñu ànd. parce que bu ñu àndee def musiba léegi fii nag man yu bi jaar moom dafa am ñaari buntam yu fa nekk ñaari sponsor ñoo fa ne moom it bu ko defee. bu armée benn bi ubbeeku bu tiiree benn ubbeeku rek ndox mi gaawantu génn léegi nag ñi fi am problème boobu nag nga xam dañu am dysfonctionnement li ñuy wax dysfonctionnement hypophysaire maanaam seen xel mi ni muy joxee ndigal bi dafa gaaw stimulation bi gaaw ñoom dañuy génne seen man yu te duñ ko tey ci seen problème bi ci bopp bi la ndax mooy joxe ndigal pour nag éjaculation bi am moo tax ñooñu boo leen di faj ci bopp bi ngay liggéey bu la neexee nga liggéey ci sensibilité yëg-yëgu sàkkara bi ba sensibilité mooy ba nga xam ne excitation bi du àgg

parce que ci permis médical dañ ne góor pour mu sëy ba ndoxam génn góor gu wér war naa def gën ngaa gàtt moyenne bi 30 minutes lañu wax. 30 minutes wante ba tey moyen ba dañ ko relativiser maanaam ba tey dañ ko seggaat segganti ko ñu ne bépp góor boo xam ne ki nga nekkal di sëy muy ku jigéen ki jamono ja ngay sëy ak moom ba ba ngay pare ku jigéen ki jotul bànneex ci mu amu ci bànneex rek maanaam moom parewul ci jot boppam. boo jotee sa bopp nga njëkk ko jot sa bopp mooy yow am nga éjaculation précoce kon da war a fexe ba ku góor ki jigéen ji muy joteel mu fexe ba jigéen ji am bànneex ba noppi moom muy doog a génn ndoxam su ko jiitalee rek mooy am na éjaculation précoce ndax góor mooy tàmbali sëy waaye moo koy jeexal góor gi mu ndoxam génne sëy ba jeex na kon moom dañ ne koo xam ni ka ngay joteel bu boo àndeek moom deux minutes sax moom mu jot boppam ci koku am éjaculation progress ndax jot na boppam waaye bu dee nag man ma soxla 30 minutes nga doon si nga def keneen jox sa bop am nga ejaculation parce que satisfaire loo parce que mbir mi lan la nga fexé ba ki nga nekkal nga satisfaire ko. ni nga ni nga amé banex ci ci sa bop mom mu am ko manam dafa war parce que sey partage la joxante la partage nak dafa wara tollo bu amé fu mu ëppee rek musiba da nam kon ñam ejaculation progress wax deug yalla feebar te ñi ko am nag buñ ko fajul bu yàggee ci impuissance sexuelle lañ jëm maanaam ki am éjaculation précoce moo gën a gaaw a am impuissance sexuelle à l'avenir donc moo tax moom lu ñu war a faj la mais nag faj bi juste ci bopp bi ngay liggéey rek système la booy perturbé rek mu mu bàyyi.

mooy ndéeñ. mooy ndéeñ da ngay gis ñoo xam ne nii maanaam euh, dafay jug dafay jug ñoom seen bos day jug mais du dëgër na mu war a dëgëree euh, ñoom na est ñoom tamit problème mu tële lañ am wala. waaw dafa tële moom la ñu wax faiblesse sexuelle parce que bu jógul dëgër mooy nit néew na doole maanaam kattan dafa néew mooy kii dafa néew le am na waaye néew loolu lu ci ëpp problème circulation lay nekk maanaam deret gi waroon ñëw fii solo ci solo ci sàkkare bi ba fees teeñ deret boobu lu ci ëpp moo yegg si wut ba doy wala boog koor kafarina bi ak koor sponsorisé bi muy ngëndal bi ak nepp bi la mu war a mën jël si deret mënatu ko jël waaye daal li am mbaam daal mooy deret gi daal li fi nekk doyut kooku dana am li nga xam ne moom lañu ñuy wax faiblesse kooku ñu ci bari problème circulatoire la wala ñu am lu mel ni jabet am na ñuy wax neuropathie diabétique yu mel noonu seen neer yi commencé ay yenn feebar yoo xam ne dañu jëm ci affaire euh, li ñuy wax polyarthrite ñi nga xam dañu am ay inflammation ci artères yi polyarthrite la waxuma polyarthrite mais polyarthrite nga xam ne ci artères yi muy tooy yi jël deret bi foofu la amee inflammation yu mel noonu ñooñu tam mën na leen problème bi wala ñu am mu xol mën na leen néew doole boobu ndax xol bi na war a sànnee pour deret gi mën a egsi fii ci circulation bi ci artère wala ñu am lu ñuy wax artérioclérose maanaam ñoo xam ne seen artère dafa dem ba diis rasu dëgër ñooñ tam mën na am jafe-jafe boo xam ne mën na indi wàllu boobu kon lu cóob rek foo gisee ko am problème boobu rek en général lu cóob am na jafe-jafe daal ci deret bi wala ci tiw yu deret bi jaar wala ca li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo war a manque deret bi loolu tamit dangay fexe ba circulation bi normal rek nit ki am érection bu bu normal

ñoom daal amuñu benn yomb ngay wax daal. amuñu benn yëg-yëg daal ñoom. dañoo yomb sentiruñu dara waaw ah, dañu yomb. waaw d' accord benn problème lañu am ñoom tamit. waaw léegi xam nga nag yomb moom ci olof mooy koo xamante ni sàkkaram musta jóg bi mu juddoo musul fekk fu mu jógee sàkkaram kooku daal yomb mais am na ñoo xam nag daa mënoon nañ dañoo ne ba mënatuñu ñooñu bokkuñu nag ki musta mën musta mësa mën kooku moom day muñ ku ne ko mën na laa faj ngay mën da koy nax. ni ko ku ko judduwaale moom feebaroo nee naa nit ki li mu judduwaale du feebar ci moom noonu la mel nit ki ni nga mel noonu nga mel kon kooku moom waxuma kooku mais ki xam daa monoon ba yàgg mënatut daa dafa am impuissance boo xam ni c'est pas primaire mais c'est secondaire kooku da ngay xool mën a nekk ci wàllu sàkkara bi mën a nekk ci wàllu doxinu deret bi mën a nekk ci wàllu bopp bi mën a nekk ci parlu hormone yi ndax ne naa la problème physiologique mën na ko def muy problème hormone yi dopamine yeeg sérotonine yeeg yu mel na ne indi jafe-jafe ba góor gi am jafe-jafe boobu moo xam ci wàllu ñu am problème xëtër yi ñu am problème mu xol yi ñu am problème sidid yi artères yi ñoom ñëpp mën nañ am problème mu ñu am jabet ñi am hypertension artérielle ñi am cholestérol bu bari bi ñiy toox ñooñu ñëpp ku ci ne mën nga am jafe-jafe boo xam moo la indil impuissance boobu mais li ci am solo mooy da ngay fexe boobaa nit ki nga xool lan moo ko dal ba tax mu am impuissance waaye da ngay xool antécédent yi da ngay xool sabab yi li ko war a mën def yëpp nga xool ko en fonction nit ki bi nga ko diagnostiqué saytu ko li tax loolu am loolu ngay rectifier doo ko defar système bi. donc ku nekk moo tax gis ci wàllu faj tamit ku nekk ak li lay faj ñaar nit mën nañ bokk tële mais ñoom ñaar duñ bokk garab bu ñu leen jox parce que bokkuñu lu indi seen tële ak li ko sabab xam nga ki am jabet am neuropathie diabétique yu mel noonu dem am impuissance ak ki am hypertension nga xam ni moom it soit cholestérol bu yéeg dafa yéeg wala dafa am ay artéro artériosclérose yu mel noonu muy durcissement des artères yooyu ñooñu mënoo leen bokkandoo boole li nga leen di faje ku nekk. dafa mel ni rek di sa faj sur mesure la ku ne da koy nattal daggal ko mesure ñawal ko lu ko jot mu mën a dem kon yooyu tamit mënees na ko faj ci ki nga xam ni mënoon na te mënatut waaye ku mës ta moom sant te muñ d'accord amoon te amatoo daal yaakaar naa ne mën nañ ci jéem waaye ku musul am yaakaar naa ni ku amoon ku amoon te amatoo daal yaakaar naa ne mën nañ ci jéem waaye ku musul mën ah ñu jéem rek muñ eh, yàlla baax na ah, borom tawfeex eh, sénégalais yi nag ah, ay jamono dama fi dégg ñuy wax yoo xam ne xam nga man moom lu ma dégg rek damay ñëw laaj ah, parce que yaakaar naa ne boo xamee di nga ma wax boo xamul nga ni ma xamoo waaw li ma li ma ma gën a yéem mooy ah man dama musul dégg dégg dégg dégg naa lu ne mais lii musuma ko dégg lii ngay dégg ñu naan sexe wii damay dégg ñu naan dañ koy yokk ba mu gudd ba mu gudd sax sama koy dégg ah, yaakaar naa fu yokk am nag wàññi dana fa am mhm. ndax lii yéen ci en yéen ñi nga xam yéen a ciy liggéey xam ngeen yéen ni ngeen koy yokkee wala ni ngeen koy wàññi da ngeen koy yokk wala da ngeen koy wàññi ci gàttal xam nga léegi nag moom ñi ci ëpp naan dañuy yokk sàkkar nit ñoom seen bopp dañuy yokk rek waaw danga may dégg nag mm. ma ne ñi naan dañuy yokk sàkkar góor ñi ba ñu bëri di fa daw di fa dem ñooñu dañuy yokk rek. dañuy wax rek. ah yaa ko àgg mais képp ku ne la day yokk sàkkar nit mu toll nenn ni dalay nax ak ñi naan damay dañuy yokk ange ak yëpp ay caaxaan la gis nga nit ki li may faral dox wax ku xeebul sa noos ku ne yaa ngi noos nit ki la nga am na mu toll gere ko noonu te noppaloo. ñepp bokk ñoo yam ñi lañu gatt ñi ndol ñi digg dóoma ñi pata ñi xew ñi waw ñi nangam ndeen bi tamit non la ñi dañu yoru gudd mbara mom moom la olof di wax mbara caan ñi yor yu gatt moom la wax puqet dét ñi yor yu yam ninkatum nankatum ñi yor ku nek bi nga yor nga xamni bi nga yor kat moy sa bosu bop waye jëm ci lukh lukhé rek la nga man te baña sonal sa bop du xol bosu lamine sosé namu tol lamu sor mbara caan la war kon li am solo moy la nga am lamu tol. toll ko non ta xamni pour jigen am banex ci sey soxlul sàkkar bu reuy ndox jigen fimu amé banex ci pëyam muy sexam mi ngi tollu ci gën nga sori 4 mm te góor na xanaa lu mu gàtt gàtt sàkkaram dana mat 9 4 millimètres dana toll dana 4 centimètres xanaa dana mat 9 centimètres boog sàkkara góor te góor ñu bëri ay 9 13 parce que 15 doy na waaye nga ne nañ la ko yokkal bu mu gudd toll na loo koy doyee te ki daan la la koy yokkal boo sàgganee fa nga dem mu la ko yokkal boo sàgganee moom puqet déet su ndaw la yor waaye dalay nax mës fu ñuy naan dañuy faj muuma parce que am ay jamono ñemono dañoo wax muuma dem nañ xam ne lii tën ñu bàyyi ko ki nek na nga mel na nga juddo mu tol non non nga mel li am solo moy na deuguer bu deugere na nang ca yag boko defey wacc waye bu tole ni nel ni tam te eh, dire ko di rasu amul njëriñ ta ku ne la mën na la ko yokal nak waxu la deug ku ne day yok rek day yok waxu deug léegi nak même boko ko par chirurgie dene man nit dene ma ah bo defé chirurgie nak. man dem xotti opéré yokk fa ne yu mel non waye même bu ba boko yoké koku kooku nek gor mën na yor nag ab lu ko neex. lu ko neex daal waaye boobaa nag dootul nekk góor kon loolu amul benn solo ay yokki ange ak ay yooyu yëpp ay caaxal la nit ki nanga nga mel sant ci. jeex na. Euh, yokk bi yéen ko dégg ah moo ko wax de man waxuma ko nee na daal ku ci def def la ba dem surgi yaakaar naa ni ah. <laughs> non chirurgie moom booy état mais ñi dañuy jox dañuy jox dara diw ceeg daggal ñàmbe bu toll ni ngi ndaala ko booy ñëw nga gàddu sa ñàmbe bu ngan indeeg am na ay jamono doon nga fi dégg ay jon ñu doon yokkaloo déggatoo fi kenn xanaa bu ñu doon yokk du yokkaloo ba yokk bi yokk ba léegi xanaa nga ni kenn yokkalootul ndax yokk amut dëgg ah, déggatoo ko fenn wax nga dëgg loolu loolu leer na ah, dafa am ñoo xam ne am nañ beneen problème ah, moo tax dañuy tëdd ba guddi ñuy sëy mu jox leen ay kanam fu ñu dem ñu naan leen ay ay ay jinne ay rab laak est-ce que loolu c'est trop di sëyloo wala ay wala yow côté boobu non xam nga jigéen nit moom góor mën nga gént di sëy mhm. mën na nekk rab mën na ne mën na nekk mais bariwut xam nga góor ku toll ci sëy ñu koy waxambaane waxambaane baane mooy rapport sexuel baane ñu ne kii moom waxambaane rek la foo ko fekk waxu baane lay wax amul jabar amul fu mu baanee bu tëddee dana gént sëy lu muy def waaw kooku xam la mooy rabam takkal ko jabar mooy sangatam boo ko takkalee jabar muy baane rek dootul ngént di sëy mais ki xam ne daa nekk jabaram nag tëdd ak moom sëy ak moom tëdd nelaw géntaat di sëy kooku nag daa am rab waaye koo xam ne yow ah, musta am jabar mu ngi soxla maanaam li ñuy wax alde parce que góor am kattan doll ci bu baax mooy góor gu alde xel mi nekk ci jigéen muy lekk di naan di nelaw xel mi di nekk jigéen muy gis jigéen jotewul ak ñoom waaye bu géntee nag dana sëy teg ci wala man yu bii ak walax njaan yi nga xam ne doon ji defar nañ ko dafa war a génn benn jamono buñ ko fa dencee lu yàgg ta defarat nañ yeneen yu bees yu bees yi waru ñëw remplacer yu màggat ya fa ne waaw nit ku du génn ñu génn yooyu sànne ko yeneen ñëw waa nga ni kooku dafa am rab amul rab takkal ko jabar rek bu yàggee baane rek dootul def dara léegi nag bu amee soxna nag di nekk ak moom nag ba pare di géntaat di sëy ah ñu ne kon kooku am na lëf la am na lu ne ci biir mais koo xam ni moom toll na ci sëyut defut dara waaw faaw mu gént nag wala ngi su xam daan la mi ngi def masturbation maanaam lu ñuy wax mballu ñëw na damaa am ay rab moo tax muy mballu mballu daa topp bànneexam mu bëgg bëggam rek mais loolu du dara nañ takkal xale yu góor yi soxna dimbali leen ci téye leen ko bañ mën ko yoral seen bopp te bàyyi matérialisme bi ñu gëm jàpp ni ku yorul dara waroo yor jabar yooyu caaxaan la ku toll ci soxna nañ ko ay waajuram takkal soxna téyel ku ko dimbali ko mu ànd ak moom ba dem ba dëgër ak moom ba mënal boppam mais léegi da gis ku am 30 ans 35 amul jabar ëpp na nañ nañ may xale yi jabar yi ñu sëy <laughs> loolu leer na ñi nga xam ne dañoo toll ci sëy nan leen may ay soxna te bàyyi yiñ ciy sóor ak yiñ ciy yiñ ciy sóoraale euh, euh, borom tawfeex yaakaar naa ne temps bi mi ngi ñuy bëgg a ñi nga xam ni nag maanaam dañuy mottalikoo di jël ay ay yoo xam ne bul comprendre naan pour gën a am doole pour gën a am kàttan ci sëy est-ce que ñooñu tamit euh, ñoom duñu indil seen bopp problème. au ñooñu ñoo gën a tële ñëpp nag. loolu lañu ñu aphrodisiaque man ne du ma ko liggéey xam nga aphrodisiaque baaxul hmm. waxo na ko ben bu sam ben waxtan man leen aphrodisiaque moo ku dem bank di fa lepp ñoyam te ku dem bank da fa lepp def fa pare lu ñu wax sen découvert yoy nga fa fayaat dafa découvert di nga dem ba mujj gi bank bi doto amati dara ci lepp ngoy dëkk te boko ko lebalee sax dafa ni jamal doto la lepp doto la lebal aphrodisiaque baxul góor ñu bari tëral nañ Afrojack moo nekk te ku Afrojack tëraloo faj ko moo gën a jafe mbir mi du compétition du xuloo du xeex du jaayante doole nit ki la ko kantaram may ci wéram na ca yam et pourtant ñun waaw parce que dañ parce que dañoo xamut bu ñu xamoon duñ ko jàppee doole moo tax loo ci gis ku ci am jafe-jafe si soxna si tuuti rek nga commencé mu commencé dëngal loos waaw parce que yaa ko jafoon affaire compétition. du compétition nit ki dangay def la nga war a def na nga ko war a defee nga yam ci bu ci xër waaye topp ci mel ni ku tiim ceeb bë bëgg ko dunde ah, lem neex na lool waaye du jiwu de da nga ci dem nànk daan na xel di dal li olof naan pax mu dul fees buñ la ko suul looy suulal nànk pax mi ngi nii du fees nga tibbi peel di sotti bokk përëx përëx përëx di nga bay appaat di xeex ba tëdd ak peel bi ci suuf pax ma ne fa suuf si nga war a suul ne fa. déedéet dara fees kay après yow leen jëlee tumbut ci pax mi yow raasale la. pax mi du boo defee peel tegal noppalu tuuti defaat peel noppalu segam du fees defal ndànk. aphrodisiaque gi ne képp ku koy jël ci tële nga jëm te tële mooy li gën a tuuti ci yim lay indi conséquence mu ne la problème xol. mooy le problème bopp waaw parce que système bi aphrodisiaque ay inhibiteur lañ xam nga yaram dafa am ñaar yu koy doxal inhibiteur catalyseur pour nga am lu yam boo buggee am lu yam da ngay indi lu baari ak lu néew nga boole leen nga jël lu saf xorom lu saf suukar boole leen nga am lu yam maanaam nga jël lu tàng jër ak lu sedd guy nga am lu ndugg catalyseur inhibiteur yee inhibiteur lañ muscule lu si lay bàyyi ñu las pour jël deret gu bëri mu joué ci dopamine ak sérotonine ak beneen système la bu mais yooyu boo jël afodal da nga koy jël da nga dem mu mujj yow nag léegi yii lay ngacc nga paré aphrodisiaque baxul te jigeen ñi nak léegi ñoko jox seen jëkkër yi ñu diko naan waxuma safal dañ lay ñew sax amna yu am xom genre café la bu dee góor gi naan café da ngay ñew ñu defal lako ci café nga naan dafa ni ya ci nek guddigi nga man lol fogné sa ñambar la mom xamné na sa ñambar bu dee fin aay la nag moom balaa nga fay jëm mu fexe ba café gu la joxoon yëpp mu kafaat loolu lépp ba xëcc ko toog fële nga demaat fekkee café la nga daan fee café la da ngay jekki-jekki rek dootoo kaf ak kenn te ñoom ñoo koy def nag ñoom jigéen ñi. pourtant am na ci yoo xam ne même seen togg yi euh, am na ci benn plat boo xam ne suppu kànja lañ koy wax dañ koy defar ba mu normal ñu jox la. yooyu de wóorum waaye café gi moom góor gu ci joxati café ah. nee ko defal ma meew d'accord kon daal kafe gi maytu leen ko tuuti suppu kànja bi moom suppu kànja bi daal wóoru ko kafe gi kon daal maytu leen ko del wax reer ñu jox la café da hmm. <laughs> nga lay nga demaat fa jox la café moo tax ne góor yi di naan rek café soxna yi naan nañ ko bàyyi baaxut d'accord nañ jënd ah. ci café café gars yi am na lu nekk ci biir daal café gu garaaw afrisal la café yooyu afrisal la ñu jox nga naan mën lu dul jeex nag ci guddi gi dem xëyaat nga ñëwaat di ñu ngaccaat la bopp boobu duñ leen koy jox ñoom soxna yi ci boppam dinañ leen wax ni leen lii day indil problème seen borom kër ñoom ñoom na seen naan balaa mu fiy jóge moom naa ko bu bu demee fee du nga dem fee naa kee fee jóge xam naa mënu fa dara mu joxaat la ci café gu gën a foor ngay topp ci kaw da ngay jeg-jeg yow bu la café xeeje gi la jox moo baaxut jërëjëf <laughs> baax na ba man du ma naan café <laughs> kooku man dinaa ci mucc jox café yéen góor ñi laay wax seen kafe yi leen soxna yi jox xool leen ko ñu ngi toujours ak borom Tawfekh ci seen émission Tawfekh Sakku Wér télé bi lañ doon waxtane yaakaar naa ni dégg ngeen ko. mais nag mën nga sa dëkk sax yoo xam ne dana ko may doole defal si jus jingeer defal si jus daqaar. jingeer baax na waaw yooyu c'est naturel waaw dina ko dimbali. d'accord waaye. mais jingeer gi du ci yem jingeer rek lañ ci dolli lu ne. non dama ne café gi lañ lañ bàyyi café gi secret bi yëpp ci café gi la ne. d'accord. am na café yu ñu defee yow apprécié loo xam ne fil moo ci ne. def ko café boo ko naan day saf safu café waaye du café ñu jox la ko nag nga defe ne yaa ci nekkee nag bu ko defee ñu ne la jàmbaar nga te bis boo ko ñàkkee nag ñu ne la yàmbaar nga jàmbaar nga jàmbaar nga yàmbaar nga moo ci topp. kase gi leen ko bu baax ñu borom eh, daal boo xoolee seen tëri yi lu ci ëpp ni ma ko waxee rek jigéen ñi ñoo indi 90 pour cent néew ma lépp ñoom la waaye lu ci ëpp ñoom la. Mhm, ñoom daal ñoo ciy ngay ñëw fekk nga dugg su fekk ndaw si yàlla bu mu mel ni que ma xalaat bakkan yaa ngay bàcc baqat yaa ngay génn salte na euh, wax sa ba xotteeku na sànni benn dàll fële benn couche fële lépp jàllaanoo boo ñëwee ko sa di sax boo sawar sa di day dee di ndax la nga fa fekk moom kenn du xam lu mu te boo génnee ci mbedd mi sanse bi mel ne euh, làmb ju tas nga dugg ca kër ga mu mel ni euh, fu ay dof doon bëre jigéen ñi nañuy defaru seen biir kër yi jekkal seen bopp am wax yu neex tontu yu neex di kaf ak sëñ bi te do ko jox kafe yu ban yoy yoy ci la bok diko jox ceeb te bañ ko ciipatu. diko jox yak bu baax te bañ ko yàpp. diko jox ataay te bañ a taay di waxtan ak moom waxtaan beeg naxtaan beeg yooyu ci la bok waye duñ ko def nak d'accord yoy da de yaakaar naa ne tane kafe gi bàyyi len kafe gi naxtan gi euh, yooyu daal xet yoy bari na waxtaan geeg lamisoo geeg euh, pello bek yoy dal bari na bari na bari na bari na euh, ñi ngi won ak borom tawféex seen émission tawféex sàkk wér toujours rek li leen ci wàllu wér euh, télé euh, borom tawfeex ñu ngi ci jeexal émission bi borom tawfeex loo tàggoo. xanaa kay euh, di santaat ñëpp ñu doon déglu soppeek ñëpp rek tey nag waxtaan bi nii la moo ne foog ñu waa dugalage tuuti humour kaf ak réew yi ndax tam àdduna amul solo ñu dugal ci kaf ak yooyu rek pour indiwaale beneen ambiance ci biir waxtaan bi waaye lépp solo rek mooy daal góor ñi nañ toppalaat seen bopp di lekk lekk gu baax di dallu dallu bi mooy maanaam sëy bu bëri bi di lek lek wax tay noppalu soxna yi nañ doli dimbali seen jëkëri ci dalal leen ci bañ leen fitnal ci bañ leen tek charge yo xam attanuñu ko ci yombal leen ci oyofal leen ci bañ leen di leen di tek yenn yo xam daanaka mom goor da fay joge am jafé jafé manam dal, jigéen ñi dal ñom la yalla denk lepp ci aduna luñu yombal mu yomb luñu oyofal mu oyof ñom nak ñuy ñu bax nak jigéenu Sénégal macha allah ñoom ñëpp a baax allah nañ dollu ak seen borom dimbi len xamni tële yu bëri góor ñi di tële li ci ëpp jigéen ñi donte neewuñu ma ñoom ñoo ko exprès waaye am nañ ci tuuti part de responsabilité ñoom bu leen neexee benn góor dootul tële nañ sol lu jot nëbb seen cër yi ba góor bu soxla jigéen sax mën xalaat ko sax doo ko gis lépp jafe ba pare nag ci biir kër yi ñu toppatoo seen borom kër yi ci sanse yi da nga daan gis bu njëkk ku sol taybaasam bu rafet xeeñ cuuraay yu neex eh, takki ay long-longam keseng keseng yëpp di di kër gi am ambiance alaaji bu ñëwee xam ne kat fii kër gi moom macha allah yooyu yëpp ñu delluwaat si delluwaat ca na ñoom maam daan dunde eh, ci toppatoo mag toppatoo borom kër gi di ko def dafa dem ay beral ay bool yu santaay yoo xam ne am solo tuuti dana ci baax bu ko defee eh, góor ñi wér te bu góor ñi wéree jigéen ñi am jàmm eh, lépp mën dox kon

maa ngi lay ñaanal yàlla na lépp yàlla suñu borom di ko defar ci kàttun yàlla euh, di bëggee ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan émission Tawfekh Chaque Weer wasalaam salaamaaleykum nan sant yàlla fi qadar ki sant laylatul qadar le qadar te sant Maymunatu ngir Lamp Fall TV moo leen doon may seen émission bi ngeen tàmmul seen bopp Tawfekh sàkku wér ak Serigne Medoune Seye borom Tawfekh nan jàpp gi soxna may bu dara ni moonu may